سبت سامي عصر لخدمة مختار في سهر سفر تاريخ بموي جنيك نيتي تيمير أكفكي أت أغنيت لمبلي وور خراوات يوم سبت سامي عصر لخدمة مختار في سهر سفر تاريخ بموي جنيك نيتي تيمير maanaam siyaar si sëñ bi daal moo tax a jóg. ñaata ñu ngi doon ñëw fii di siyaar si. maanaam jàpp naa ne nag war na ci ay ña ñetti daal. waaw ba ñoo ñëw bi maam da ngay da ngay taxaw bi di raax waaye bi di siyaar si bi ma ñëwee fii daal maanaam yëg naa ci sama xol daal ne daal fii euh, ki fi nekk mooy sëñ Tuubaa waaw loolu daal bi taalibe bi yëg sëñ sëñ bi sëñ bi daal loolu laa fi yëg. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Ba ñu ngi seetlu. ñu ngi seetlu. nan nga tudd. Pape Pape Pape Diouf. waaw fan nga bawoo ñëw fii. man maa ngi jógee Dakar maa ngi jógee Bentali. Ah, Bentali waaw waaye Ngoy laa dégg. waaw ñaata ñu ngi ñu fi ñëw di siyaar si. ñun euh, def na ci ñeenti at bi. war na dem ci ñeenti at. waaw. da nga ñëw maam ba nga saa taxaw li taxaw bi nga taxawoon maam lan nga yëg sa biir xol. xanaa bëgg ak bëgg sëñ Tuubaa rek. bëgg sëñ Tuubaa man fu mu nekk dal maa jarale bàyyi sama lépp dem sa maaleykum salaam. xaadim Ngom. si xaadim fan nga dëkk. man maa ngi dëkk Colobane. Colobane ñaata yoon nañu di siyaat fii fii bi mooy sama ñetteelu yoon saa yu fi ñëwee moom maa ngi fiy ñëw incha allah. maanaam taxaw bi nga taxaw fii maanaam lan nga yëg sa biir xol. taxawaay bi ma yëg fii mbégte rek ak cofeel cofeel goo xamante ni Serigne Touba Serigne Touba lim lim ñu defal lim ñu defal tey jii dañ ci dañuy gën a gisaat dañuy gisaat chaque jour dañuy gëna gisat ay ngëneel yo xamanteni chaque jour Serigne Touba dañ koy gëna wan ñun ndaw ñi nak dam damay damay ñaan sun li Serigne Touba ñun mënuñu ko fay defuñu ko dara dañuy dañ dañoo war a gën a taxawaat gën a taxawaat gën a xamaat kan mooy Serigne Touba ñun ndaw ñi ndax dañ bu fekke dañ doon wax naan ñun mag ñi la fi mag ñi doon def mag ñi du doon du doon su doon nangam kon nak tay asama nak tay Serigne Touba Serigne Touba nak ñew dakaru gi nga nga mëna bayyi sa liggéey yépp ñew taxaw fi taxaw fii kon ngëneel yooyu noonu yàlla ñu Serigne Touba defal lu lu kawe sunu njort sama li nekk sama xol lépp lu ma koy wax sax. léegi laaj yéen maa ngi tudd sëñ Alioune Fall. Fass Mbao laa jógee. maam ah xanaa di dund sëñ Touba di xam ne amul amul morom sëñ Touba moom li ma waxoon ne chaque jour ay mbiram moom kanam la jëm. da koy wane fu mu toll kon bu ñu amee tawféexu taw mu ñëw sa mu ñëw Dakar gane si ñu ngir defal ñu ay tawféex may ñu ñëw siyaare ko. léegi moom ñëw gi ñëw bu Dakar pas-pas ak suñ booloo bañ a xaajali ko nekkaat benn benn say comme ni mu koy wootee fu mu fu mu doll ni ñu àndee tey ñu ñëpp ñëw kenn xamul kii fu mu bokk kële fu mu bokk ñun ñëpp bokk nekk taalibe loolu noonu daf ñu boole googu noonu la ñu war a ànd ñu nekkee ko bañ a ànd comme ni mu ko waxee rek ñun ñëpp ñu ànd nekk benn. surtout Xassida TV xanaa di ñaar di ko ñaanal te moom dafa ñaanal boppam ba pare xam ne mbiru sëñ Tuubaa moom képp ko jël sa biir laxas ko si biir rek la lay rek kanam la jëm te ñoo koy ñaan si barke xasida yi suñu borom yóbbu ko mu nekk mu jëm ba si kanam a kanam si barke xasida yëpp ñaanal fan wu gudd wér gu yaram moom tamit dékk ko dékk ko ñaan. bëgg naa yëg naa lu rëy parce que lii xam naa ne Serigne Bamba rek moo mën lii. wax xam naa ne nit ku baax la ku bëri yërmande la ku tabe la tamit parce que li mu def ku tabe rek moo koy def mm-hmm. waaw. du ko ñaan rek mu tappe xol yëpp. waaw parce que Sénégal moom fi mu ne surtout Dakar soxla nañ ñaan mm-hmm. soxla nañ ñaan vraiment. Mm-hmm. xanaa sant Serigne Touba rek. nan nga tudd. Marème Djiliw. fan nga jógee ñëw siyaar si fii. Euh, Mbedd Fass. Mbedd Fass waaw Mbedd Fass laa jógee. Euh, waaw ñëw siyaar si waaw waaw fii laa koy doon sa yaare. ba nga ñëwee fii si kër gi lan nga yëg. ah yëg lu neex rek neex rek bëgg Serigne Touba rek fii Serigne Touba dong la ñuy yëg moom la ñuy dund. waaw moom dong la ñuy yëg moom la ñuy dund. ni mu daan def rek at mu nekk ñëw gunge ujaa yi nga xam ne dem Baytul Laahil Haraam nga xam ne depuis fukki at ak benn mi ngi nii saa su ñëwee mu leen di yóbbu ren ñu toll ci ñeent fukki euh, ñeent fukki ujaaj mu dellu seen ko baaxoo def di leen berndeel nekk ak ñoom biirum ñetti fan ba ñuy dem mu gunge leen ñaanal leen loolu moo ko fi woon alhamdulilah rabbil ñëpp dem nañu ci jàmm ak salaam. Euh, ñeent fukki ujaaj la yóbbu incha allah. li ma def ci ñoom bari na ndax euh, ay jullit lañ ay taalibi lañ euh, te ñëpp dañu am ci moom cofeel te ñëpp xam nañu ak màndu teem ak ni mu ci sunna ak njàngaleem sëriñ bi nga xam ni euh, waxuma sax julit yi di nga gis fay ay catholique yu ñëw fi di ko siyaar ndax am ci moom cofeel ndax euh, jikkoom na melokaanam ak ni mu jàppale doomu adama ak yërmandeem nekk nitu yàlla koo xam lu mu ñaan suñu borom def ko loolu moo war bi nga gisee gis nga mbooloo mi taalibe yi fa fenn fu nekk ay nit nga fa bàyyi ko ñëw di taataat yërmande ndimbalu sëriñ bi di ko siyaar si ngir sëñ bi gis teg ban mu ñaanal leen euh, ndimbal la bu baax a baax ndax am na ñoo xam ni amuñu jot ngir ñëw Touba mbaa mosuñu fa ñëw su ñëwee fi fekk si leen ñoom ñëpp ñu ñëw euh, siyaar si ko taataan si ay ñaan xéewal la ci ñoom ndimbal la ci ñoom te gis nga euh, ren dafa dafa am lu doy waar lu ci am ndax mën a wax juróom-ñaari xalif généraux ñu ngi ci dëkk bi tey fanaan fi biig te loolu yàlla ak jëmmam moo tax te loolu yëpp nag ndimbal la xéewal ci Ndakaaru xéewal ci Sénégal yëpp ndax lu toll juróom-ñaari xalif fu ñu bokk fanaan foofu mën nañu am yaakaar bu baax ni yërmande rek moo koy fanal ak ndimbal ak yërmande. gis nañ jamono tamit suñu tubaab ak suñu taal yëpp dañoo ay bésu alxuraan. bi ren dafa xasaay. la ñu si a xam nga boo gisee suñu borom mi ñu bind daf ñu digal ñu ñaan ko ne yonente bi alayhi wax ne addu'a usilahul mu'min yalla wax ci alxon ni addu'uni astajib lakum da ngeen ma ñaanoo may leen moo tax euh, saa su nekk mi ngi digle ci jumaa yeeg euh, jàkk yi ay dara ñu jàng alxuraan ngir ñaanal ñaanal réew mi ñaanal euh, ñaan ci nawet bu baax moo tax mu ni nañ fob képp koo xam ne yaa ngi fi yor ab daayir ci dëkk na nga ñëw fi ci bis boobu ñaar juróom-ñetti fan ci weer bi muy ji weesu jàng jàng ay xasal def istighfar ñaanal sénégal ñaanal ujaaji ñaanal réew mi ñaan nawet bi ñu dugg suñu borom àggale ko te ñu ko ñaanal ñëpp am xéewal euh, bekkoor jóge fi ba abadan loolu moo sabab muy sukkandiku ci alxuraan ak xasida yi eh, di ko fàttali ko di ci ñaan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barakatu mbokk yi seetaan seen télévision TV ñoo ngi leen di nuyu te di leen siar tay ñu ngi leen tewatal fi ci kër khalif central de Mouride gi nek ci dakaru ñu ngi taxaw ak kenn ci jëriñ daara Histoire da Xudoos muy Serigne Mbacke Thioune ñu fekk ko fi mu and ak wa daara ji ñep dikk comme niko talib Serigne Touba yi di defé heure bu ñëgé né khalif central de Mouride ñew na dakaru ñu am jotaay yu ñu fi amal jëm ko ci njàngum alcorane ak eh, yëkkati njàngum khassida lépp ngir ngan gi nga xam ne sëriñ bi mu ngi koy def jëmale ko si ujaaj yi nga xam ne da leen yóbbu màkk kon dañuy jox sëriñ Mbacke suñu micro mu wax ñu nan lañ dundee teewaayu sëriñ bi fii si Ndakaaru alhamdulilah incha allah bismillah rahmaan rahim kon Cheikh Abdou Aziz euh, ñu ngi sant bu baax a baax ni nga ko waxee rek tey dañ fay ñëw ni nga xam ne moom la ko murid yëpp euh, di defee ki nga xam ne mooy kii sëñ Tuubaa di suñu yaakaar ak ëllëg ñu am gan bu rëy boo xam ne mboolem ñoo xam ne nekk na Dakar am nañ ko muy xalifa général de Mouride ñëw fi Mouride yëpp bàyyi seen nit ñëw fi moo taxoon tey it Hizbut Tarqiyyah Daaru ñu amoon yéene it ñëw muy feddiliku ci ñi nga xam ne moo lañ fi njëkkoon a ñëw indi suñu addiya euh, siyaare sëñ bi ànd ak mbooloo mi it duñ mën a yëkkati si xasaay di nga xam ne ku ne xam ne Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ak ñu fas yéene barkeel si xasaay bi indaale suñu addiya siyaare sëñ bi ndax dafa war a gar képp koo xam ne rek sa soppe la nga siyaare ko rawatina nag xam ne waroon nañu jóg dem fekk Touba ni ñu ko defee naka jekk waaye bu amee xéewal nag mu ñëw gën a jege day taw feex gu rëy daara ji baaxoon na weer wu nekk mu def ziar boo xam ne dana ko yóbbul sëriñ bi togg ay xéewal yóbbaale ko kon bu fekkee ñëw na fii nag day mel ne cellule Dakar ñoom ñoo aaye lu mel noonu kon ñoo war seet lépp loo xam ne aji si àddi yi ñu def ko lépp taxawaay bi si war ñoom la war ñoo ko war a def muy Daaru Dakar bi nga xam ne lenn la si bànqaas yi nga xam ne mooy yu tarixa Daaru Xudoos xarawaac sabti saamin asar li xidmati muxtaari bi sanri safar tarix ba mooy junni ak ñetti téeméer ak fukki at ak ñett lim bi lee wóor xarawaac yow sabti saamin asar li xidmati muxtaari fii sanrit safar tarix ba mooy junni ak ñetti téeméer ak fukki at ak ñett lim bilee